لا تنسون الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فتاه وهاب يا رزاق يا مريكي لفتاه وهب لي والسكن يمكن الآن ليخي أزلا عاجلا بالبشر معمد حتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوعي توبا وحمني وقني أدر وراه وتدب لسما إسكانا كالسماء والأراضي والهواء بلا مشارك أشكونا أجب وسلم بسلم حسن دي محمد وتولي بأيكم الله سبحان ربك رب أبي إذن وعسون سامحا مسلنا ورحمة الحمد آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقيد الخني المهني وقيد أكابر الصالحين والمدرسة الخديمية والعبد الخديم التربية الروحية أكفن واي من دي دقي ñu leen di siyaare bu bu wér-wér di leen ndokkeel ci tabaski gu tedd googu sunu sunu maam Ibrahima alayhi salaam yàlla jaare la ci loxob si nam alayhi salaatu wasalaam alal anbiyaai wal mursalina aska salawatillahi taala waan ma taslimaati kon kon ñu siyaare bu baax a baax xam naa da bëggoon na def benn xitaab boo xam ne dañ koy jëmee ci ci waa Faydul Xadim mu waxoon ci nag la la suñu saali waxoon ñi nga xam ne ñi nga xam ne seen seen naa leen a digal kon ma digal leen digal leen bu wóor maanaam mu ko waxee woon ci xam naa bokk na ci ci Iidul Adha baat bi li muy firi mooy sacrifice moom. sacrifice moom nga xam ne loola mooy laytaayu di diine yëpp sacrifice wu ne la saree min mu'minina anfusahum wa amwaalahum benn lahum nangam àjjana yi biir witt lay doon benn lahum janna xare kon yàlla bu bu as gor bu ne yàlla kat maa ngi nii jënd ma yàlla jënd ko kon moom jëmm ja moom alal ja bu soxlaa bakkanam mu ne ko am bu soxlaa alalam mu ne ko waxi noppi su borom ne ne ko nag li li nga man def nga ko man nag tëlewuma dara kon dana kon danaa la terele ëllëg taax yoo xam ne ku fa dugg duutoo génn duutoo soxla génn ngir teraanga yu yu kawe ya la gën a foor ca teraanga mooy yàlla yàlla wuñ ñu lenn ci kiiraayam ya wan ñu ci jëmoon ju sell ja la ko soob loola moom nga xam ne kon loola Seydina Ibrahima xalilullah lim njëkk a am ci tabaski mooy ne xaritub yàlla xarit ba nag su mu saaga nee na yàlla xarit balay musibaal am na am na ko waxoon si la ma ne ko dama laa sopp si la ma ne ko ko kon na nga na nga na nga defaru de da nga ñàkk da nga sonn waaw waaw ma ne ko kon moom loo loolay aada ja kon loolu la ñu jàngee ci tabaski waaye du lekk naan ni ni ko njaayeen yi di gise ñoom lekk naan rek déedéet waaye nañ nañ ci xool ne sacrifice mu la da ngay sacrifice wu ngir yàlla xool lan yàlla lal laahu noonu laa tee laahu la عرفنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منكم lañ ci jublu dëgg mooy nga def ko ngir jëmmoom ji rek waaw loolu la taq taq taqwaa moom mooy ni yàlla bëgge ci nga moytoon nam tere jeex na xam naa waxtaan wi tigi tey moom li fi mu war a jëm mooy ci daara gi daara daara yi fayru ataa bi salihin naan la bu tedd boo xam ne danaa ko leeral dama jàngale dama jàngale am at maag suñu waxtaan jub tafsir ñoo naalan woon booba noonu dañoo bëgg a samp kër wut kër kenn ku ne ci ci nun ñaar yaa ngi ci sa kër baay wala sa kër maam ñu bëggoon a wut kër loolu tedd ngoog waaye man boobu boobu man foofu foofu lañ wutee ca naal ba bañ ko toppatoolee barabam boobee ma maa ko tànnal man la bàyyi ma tànnal ko am na bu ñu ko tànnaloon ka ka koy jaay ma ne ko fii de nangam nañ ñu ñëw ci ceet fee ma ne ko fii de baax na ba mu noppee ma ne ko man man de fii moom dafa xat ak man benn parcelle képp nañ ñu ñëw ci ceet fee ma ne ko fii de baax na ba mu noppee ma ne ko man man de fii moom dafa xat ak man benn parcelle képp xat na ak man mu ne ma tegaat dem Paatar Paatar de foofu suuf sa sa yóbbu mu ñëw fii booba dikkee ñaanuma kenn damaa jënd sama sama ñaq woowee lan laa jël jox yàlla lebal ko ko naaral ko ci daara joo xam ne waqfu lillaahi lay lay doon kenn du ko donn daara ji waqfu lillaahi lay doon ndax dama bëgg mu wéy dama jàngatoon ca sunu gaa yu baax ya yëwa yoon seen seen naal ya mujj na na naax saay ngir ne dana ngir ne dañ koo jokkalante ci jokkalante woo xam ne seen ginnaaw woo xam ne jombul ña ko yor néew nañ ca doole ba ba mënuñu ko ko wéyal loolu nag taarix li muy jëriñ mooy nga jël ci bind kooku nag man jël naa bind ci sa taarix ginnaaw yàllaa ko moom faydu faydul xan lil mu nii mooy ñi ko war a taxawee ndax ñoom ñoom ñoo jaay yàlla seen bopp man man sama yoon ni ko ca la si daa waxoon suñ suñ coon galangal nee na ma ka ka jibloon ci sëñ Tuubaa ca bureau commandant ba sëñ bi ne ko bi nga ko waxee dégg naa ko boo boo boo boo ko jëfee jàpp naa ko kon kon fay du fay du xam ne moo ne ñu ko la ñu wax dégg naa ko de gën ko nekk yaa ñëw wax ma la nga wax kon kon dégg naa wax ja boo ko jëfee jàpp naa ko. boo wax naa keroog mu lu am solo ma ne ko man day suñu boobu li may xamal ci jaam ñi ba noppi te du ma ko doxee léegi nag moom fi ñu toll fas naa ko yéene doxee moom lu ma yàlla xamal ci ab jaam ma doxee xam-xam ba te te bañ a doxee biti gi li may gis ci biti ginnaaw loolu loola bala ñu dikkaat ci daara yi pataar ji saate moom it damaa dem xarmat ca daa xudus am at dajale loolu dajale ko muy muy six cent soixante quinze mille ma jël si six cent ya dégg ñu dégg ñu ne kat saate Ousmane mu doon ne ne ma saate de suuf sa mën a nangam la trois cent mille ma ma daal di di di jël xaalis ba keroog boo koy jël ci maam Cheikh Ndiaye maam Cheikh Ndiaye ma ne ko ma ne ko ah soxla naa ko lool de waaye ma maa ngi koy lebal yàlla di ko wax Ousmane wax dëgg ah Ousmane ne ko ne ko nee naa maam Cheikh de lii de soxla naa ko lool waaye lebal naa ko ku yàlla. yëfee daal yëfee daal daal di tonawu ci lu gaaw ndax ndax. ñoom téye nañu xaalis ba ab diir daal la ñoo ñoom kat faro dañ ma koy jaayee benn bu nekk ñaar fukki junni waaw ndax xam naa daara ji daal li ma fa naal mooy ba tey daara ji paatar ji laa fa naal ndax daara ji ñaar fukki junni ñett laa ci naal te te mel na ne mi ngi dox de mi ngi dox moom waaw waaw ci wàllu dox ni moom rek xombal googee ña ngi fay wut benn am na fi ñu ñëw ci fan yii ne ma seen dëkk ba ca kees ñoom it ña ngi ma fa topp loolu waaw am na ñoo xam ne ña ngi wax leen waaw comme foofa ko ci kon Abdoulaye Diop lew na dégg ko ndax bu jël nañu fa fukki Ousmane danoon na jël fukki ñu jël fukki kon fay naa six cent mille juróom benn ya mu res ñeent Abdoulaye Diop lewoon daa ma yónnee quatre cent mille waaw ko ci def muy fukki pàkk nga xam ne daara yi yàlla laa ko yàlla laa ko naal muy nii rek daara ji rek ci Paatar nga ne ñoo xam ne ci la naal bi tàmbalee ñu ngi ci waaw bokk na ci naal boo xam ne ne danaa ko ko ko fàttali bëgg naa fi bëgg naa fi jumaa ju mag yoo xam ne bëgg naa ko fay liggéeyal yàlla ndax jumaa da jàngoog yëpp neex na ma waaye jumaa dama neex la masjidun aussi sax à taqwe joojee laa soxla lool axaqu an taqum fii jooju jumaa moom moom soxla naa ko fu fu ma ko yàlla saxee rek bëgg bëgg naa ci yu bëree bëri daara yoo jumaa yoo xam ne day nekk ay jàngu boole ci ci biir ne ko suñ tubaab defe woon pataar ji nag nag nga xam ne tàmbali nañ ko booba ñoo ñoo ñoo ñotti ay ab diir ndax it booba dama ne ngir yàlla yàlla la gàttan doxee na nga ma ne naa ko ma ne woon donc la la koy doxal ba gaa yi fekk ma ci nag yàlla wammatal ma ay gaay yoo xam ne wali xaada ahbaban bihim usiru nuska yàlla suma dugal ñoo xam ne ñu ñoo ma taawul liggéey ba ginnaaw yàlla woote nañ ko ngir yàlla kese la kenn du fay dara internat bu ñu doon yalwaan la kenn du fay nga xam ne ñi at mi yëpp ku fi wéré di bi ma fi nekkee ku ku ku wéré di ordonnance ba maa koy jënd nga xam ne naal nañ ca lu bari Abdoulaye Diop leew na moom rek centre boo xam ne dañ ci jàngale informatique biir ne ko suñu tubaab defe woon patar ji nag nag nga xam ne tàmbali nañ ko booba ñoo ñoo ñoo ñoo ñotti ay ab diir ndax it booba dama ne ngir yàlla yàlla la gàttal doxee na nga ma ne naa ko ma ne woon dong la la la koy doon ba gaa yi fekk ma ci nag yàlla wommatal ma ay gaay yoo xam ne wali xaada ahbaban bi mu usiru nuska yàlla suma dugal nga xam ne ñu ñoo ma taawul liggéey ba ginnaaw yàlla woote nañ ko ngir yàlla kese la kenn du fay dara internat bu ñu doon yalwaan la kenn du fay nga xam ne ñi at mi yëpp ku fi wéré di bi ma fi nekkee ku ku wéré di ordonnance ba maa koy jënd nga xam ne naal nañ ca lu bari Abdoulaye Diop leew na moom rek centre boo xam ne dañ ci jàngale informatique xale bi bu bu génnee ingénieur lay doon ci informatique nee na moo koy équipé moom moom sa sonoo la ñaari pàkk yii ci ginnaaw daara ji lañ ca soxla mooy def ko ab ab ab franco arab xale bi bu jàngee fii ba noppi daal di toxu ca ca foofa moom it internat lay doon moom mu ne fa di jàng bu fi jàngee mën naa am ba am BFEM Babacar yéen si seen programme ba mën naa am BFEM bu fa amee su dee dañ foofu la bëgg yam mu yam fa jàngal ko métier waaw su dee daa bëgg a jàll mu mu jàll ba université bu demee université nag ba dikkaat vacance yu ne day ñëw ci daara ji ndax daara ji dañoo bëgg daara yi tërbiye la njàngaan da ci dugg xale bi bu bu fi génn génnaale fi tur yàlla incha allah am na ci am na ci xale boo xam ne mooy koo xam ne nag daa joxe boppam kooku kooku laay sëñ digal koo xam ne moom dafay ñëw di njàngaan rek kooku moom kooku moom la may sëñ ci moom du bari kooku jox naa ko maxuus mag ja rakk ja rakk ja ma jox ko fukki fukki laa seen ñaar gina ginaaw julli gune waaye mooy ñi ma am sañ-sañ ci ñoom ndax ne nit ñi dañu naan kii ci ci gone la ma ne ah ginaaw kay mën naa julli suñ boobu kay taklif ni ko julli kooku kay kay mukallaf la mag la fekk daal mukallaf mooy responsable la nga xam ne noonu ci wàpp yi doxa nii moo nii xam-xam la ne woon naa Moodu na daara nos gi nan lu mu gën a xam-xame gën ca ndax xam-xamay mën a wéy mooy mën a jàll ci ay ay ay ay seekal tubaab bi loolu la ñu rawee pharaon yi loolu la ñu rawee woon seen jamono kon noonu lu mu gën a xam-xamee xam naa dañ ko saytu nag léegi moom bay lu xam ni moo ni daal ci dafa am commission boo xam ne commission scientifique boo xam ne ñoo koy saytoo li ciy dugg lépp ak li ci gën a lépp ñu koy saytoo lool loolu moom xam naa jombut kon kon moo joxe woon moom moomee def def def loolee jëfam ji dara naqayu ma jël ci nga miin ko lool di ko wéttalikoo ci nit gi kon kooka kooka saa bu xëy xëy dem da dana fi dana dana xaw a am lu mu lu loo xam ne daal dana ko manqué ci yow waaye waaye loolu amul solo nit gi man moom tàmm naa loolu al unsu billahi gi gi moom la yittewoo waaye yittewoo ma nit ñi ba mbokk yak jàmbur yi ñëpp yem ci man waaw wét ba may xàmmee ba tey musuma am wéttal ci nit ñi kon kon loolu moom lu fi gaar rek la waaye li li li li metti ci jëf ji dëgg dëgg dëgg dëgg mooy màbb tool bi yàlla kooku moom xam naa maa ngi ko ci maa ngi ko xaw ma loolu moom mbir ma moo borom man sama yëngu ci kon kon moom yàqalu ma de wax dëgg yàlla tool bi yàlla la doon jéem a yàq tool bi yàlla nag ku koy jéem a yàq kooku moom la Abu Talib waxoon Abu Rahata ba ngay laaj naagaam ya Abu Rahata Abu Rahata naa ko ah yow yow mos ma ñuy tëj seen néeg bi nga naan ay naaga mu ne ko déet ah loolu man sa sama yónni ko ci inna lil bayti rabbun yaxmi ah néeg bi am na borom de man say lu ci man man moomu ko waaye man daara ji naka noonu daara ji man moomu ko daara yàlla yàlla nag moom moo xam ak daaraam moom moom kooku mbiram la su bàyyee kooku yàq yàq gi wéy kooku kooku kooku mbiram la man li li man bu bu yàqee rek ma ma defaraat ma ma man loolu laa seq yàlla kay kay yàq kooku kooku moog yàlla la man nag li li ma seq yàlla mooy di ko defaral rek di ko defaral rek di ko defaral waaw loolu moom daal ku kuy xotti may gaar man rek kuy xotti may may gaar bàyyee nag borom. borom to borom muum yi nag borom manto bi moom ma bàyyee ko ko moom ko ko ko ko ko yàlla suñ boobee suq ñu dara dara dara dara ñu ngi déggante téléphone ak lépp dara dara ko kooku ñitti ga lay xool man waaw kon daal moom daara jàngoo ko lu ci waaye bëgg a xam ne na na ko ko laaj man xaw ma ci dara dara dara jàppalu ma ko dara rek nag dara laa ko jàppalul waaye liggéey bii moom liggéey bu am solo la boo xam ne moom xam naa ne shayaatil insi wal jinni ñoom danañ ko jéem a yàq waaye duñ ko man de ndax su moom dimbalee na na ma yéene ji dafa sell ngir yàlla waaw loolu moom yaakaar naa ko yaakaar naa ko yaakaar naa moom daara ji ba ba may dajalaatu loolee di ko jëndee pàkk yi booba kër sax amaguma booba amaguma kër sax for waaw dara laa wut nga ne sëñ boobu ma àndal moom ma ngay wut kër gu mu dëkkee man ma mu muy wutal yàlla kër walillahi miiraas samaawaati wal ard ba Cheikh Mbacké aw balla wax na ma ci lu am solo moom suñu fallu ne ne ma day ah Moustapha day sa sa diggante sa borom baytin bi day moom kooku yaag sa borom la mën naa am solo lool waaye na nag daara ji daara paataar ji su ëllëgee ñu am ko faram daal ne fii day daara yi mu soo jóg ci ci kokki la mu ne man lañ ci mën a amee day mu mën naa ëpp lool batin ba mu ne ko man xam loolu am solo la waaw jee jeexit asaarul xaw mi seen jeexit ya fii lañ jaaroon loolu moom loolu loolu moom dama koo dama koo jàpp lool su su su fenkee ya ba tax ñu toll paataar ñoom jombul mën nañoo jàpp ne fi laay dëkk dëkk mu fi de dëkk mu fenn koy ban suufu si yàlla adulahi wasian maa nga dem saate maa nga dem lompal maa nga dem xombal maa nga dem fu ne Ndakaaru fu ne laa jëm de waaw li li si dund gi moom yàlla la jaay naa ko yàlla dama dama am si gént ñu ñu wax ma dara ne ma Moustapha li nga am amee woo ko ci julli amee woo ko ci woor kon lebalal yàlla sa bopp. dund gi moom yàlla la jaay naa ko yàlla dama dama am si gént ñu ñu wax ma dara ne ma Moustapha li nga am amee woo ko ci julli amee woo ko ci woor kon lebalal yàlla sa bopp ba daal di roy sëñ ba ca aqratu kullillahi rabbil alamin incha allahu bi bi xidmati la waaw yàlla lebal naa ko sa sama lépp ci liggéeyal ko ci toolab yonent bi alayhi salaatu salaam jaare ko ci sëñ Bamba kon moom looluy liggéey bi kon maa ngi maa ngi sant ñëpp koo xam ne fay du ñoom ñu lay sant ñoom ndax yaa xaadimal muxtaar laa tan sa sax boobu fu man yeen saxum fa matum matum xatta ude waaw fay du moom boo leen fàttee tagg wa day daal di juunoo waaw waaw kon ñoom ñu ñoo ànd ak ma liggéey bi waajur yi ñi fi seen doom nekk ak ñi ak ñi fi nekkoon ñëpp ñoom joxuñu ma woon dara ñoom waaw ñoom ñoom ñoom joxuñu ma woon dara kon ñoom ñi ñi tax daara ji mën a taxaw saahir si ñi ko yor ñoom lay sant kon muy waa Faydu Xadim wax nii ak nag soppe ya waaw soppe ya ba ci tuddee Abdoulaye Diop lew na moomu def jëf ju tedd yooyu ak yéenam yu tëdd ya kon kon kon doo doy Mourtala Ndiaye Canada moom it noonu waaw waaw moom it jëfam yu tëdd yooyu yooyu mu jëf ak i moroomam kon loolu kon du doon sëkk kon kon moom liggéey baa ngoog man kat moomu ko toolub yàlla la képp koo ko bëgg a yàq nag kooku moom moom biraa su man baari seen yi biraa su man yu yu baari su mun taxam loolu bari sa man foofu rek laa ko jàppee kon kon ñu ngi siyaare ñëpp ci di di ndokk yàlla di ñaan yàlla defal ñu topp yàlla ndimbal jé jégal ñu sunu bakkaar yu jëkk yéeg sunu bakkaar yu mujj ñu yéegal ñu ca ca liggéeyu mag ña waaw léegi liggéeyu mag ña wax si xatim sama ko